asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant si li ngeen di déglu seen podcast yeewu tey dañuy ñëw waxtaan ak yéen si acteurs yi nga xam ñoom ñooy tourner autour du bitcoin ñan ñooy utiliser bitcoin ak pour lan lii dafa intéressant parce que dina leen jox benn idée sur ku nekk la mooy waral instant yi muy intéressé aussi bitcoin lan la siy gagné mais ku nekk tamit lan la siy coytu pour ëllëg. duñu ci bëri dañuy investir ci bitcoin ñu ci bëri dañuy liggéey ci bitcoin ñu ci bëri dañuy promouvoir bitcoin comme man mii parce que ku si nekk danga am say raison te loolu lañuy ñuy xool. alors ñi ñuy njëkk a xool mooy utilisateur bitcoin yi mooy man mooy yéen sûrement. mooy ñeneen ak ñeneen million de nit yi nga xam ni partout dans le monde aux quatre coins ñu ngi utiliser bitcoin wala yor nañu bitcoin wala mës nañoo yor bitcoin ku si nekk nag sa motivation yi c'est propre à toi donc euh, am na ñoo xam ne dañuy dugg si bitcoin parce que dañ ko jàppee benn moyen de devenir riche rapidement am na ñeneen ñoo xam ni dañoo yor bitcoin parce que dañoo bëgg a protéger seen bopp si inflation bi si économie bi nii nga xam ni. c'est un peu délicat actuellement ak crise yi am na ñeneen ñoo xam ni dañ ko jëlee comme investissement comme su fekkoon nañ jënd or am na ñeneen ñoo xam ni dañuy jënd utiliser bitcoin pour nëbbatu pour mën a daw fisc bi donc euh, ku si nekk ak sa motivation mais looloo si neex parce que au final c'est démocratique ku nekk yow yaa xam lu tax nga koy utiliser mais ku si nekk yaa ngi siy gis sa bopp. aussi utilisateurs yi ñoom ñooy utiliser portefeuille virtuel yi. Euh, la plupart du temps yi nga xam ni moom la gars yi di développé di ko dugal ci Play Store bi wala ci App Store bi euh, la plupart du temps aussi montants yi utilisateurs réguliers yi normaux mooy di dugal ce ne sont pas des montants conséquents mais en tout cas ñoom ñooy dundal Bitcoin globalement. deuxième groupe d'acteurs yi maa ngi leen di woowee commerçant yi maanaam. ñi nga xam ne dañuy jaay ay produits wala dañuy jaay ay biens ba pare di nangoo jël bitcoin comme moyen de paiement donc gis nañ depuis quelques années que am na ñoo xam ne dañuy jaay ay matériel électronique contre du bitcoin am na ñoo xam ne dañuy jaay ay kër contre du bitcoin ay auto contre du bitcoin Londres ñu ngi ma doon wax tamit ni boucher yi am na sox ñoo xam ne dañuy accepter ay paiement en bitcoin donc tous ces acteurs la ñi nga xam ne dañuy joxe benn bien contre bitcoin yi commerçant yi la ñoom ce sont des acteurs majeurs de l'écosystème bi parce que au final ce qu'ils sont capables de fair ñu bëri sañu ñu ko def te pour nga mën a def loolu il faut vraiment que nga am confiance ci moyen de paiement bi il faut nga am confiance ci bitcoin en tant que crypto-monnaie mais aussi ça veut dire que yow wóolu nga ni bés boo jëlee bitcoin yooyu noonu suba nga bëgg a wu am na kenn koo xam ni dina la approvisionner en acceptant le bitcoin comme moyen de paiement donc commerçants yi ils sont présents un peu partout dans le monde te am na benn site web bu tudd coinmap map org je répète coinmap point org boo xam ni mën nga gis tous les endroits référencés yuy accepter bitcoin comme moyen de paiement soo leen demee ngeen zoomé di ngeen gis ni Afrique on est très très très très en retard et que Afrique de l'Ouest di nga gis ay ñoom Nigéria Ghana mais lu gën a jege Sénégal moom Gambie laa gis benn endroit même su fekkee Sénégal am na xam naa si yenn mais pour lu moment il faut ñu def travail de référencement boobu noonu. troisième group bi ma leen di présenter mooy mineurs yi alors comme vous le peut-être déjà Bitcoin dafa basé wu ci benn protocole léegi dafa basé wu ci lu ñuy woowee proof of work. étant donné nekk dañoo nekk ci benn chaine de validation d'une chaine de bloc mineurs yi dañuy def benn travail bu important pour mën a valider transaction yi valider bloc yi ñoom ñooy assuré wu ko ni consensus bi maanaam ensemble de règles yi nga xam ni moom la ñu hardcodé moom la ñu distribuer et moom la ñëpp d'accord pour mën a am benn réseau peer to peer boo xam ni danga nga ci am benn crypto monnaie ñoom ñooy assuré wu ni que loolu lépp. c'est appliqué comme il faut et par tout le monde léegi mineurs yi ñoom ison ont du matériel spécialisé instant yi nii on parle de ASICS pour Bitcoin c'est euh, benn hardware boo xam ni ça vaut entre deux mille trois mille dollars ça dépend si yow ban ngay utiliser et en fonction de prix bi aussi tu as benn puissance de calcul bu ñuy woowee terahash cest à le nombre de millions de hash que cette machine est capable de réaliser par seconde donc investissement yooyu ce des investissements lourds mais ce sont des investissements qui rapportent gros donc mineurs yi ñoom ñu ngi jëlee seen xaalis ci deux endroits premier bi mooy frais yi nga xam ni ñun ñëpp moom la ñuy fay suñu buggee yónnee bitcoin ci kenn demee ci keneen deuxième bi mooy lu ñuy woowee block reward à chaque fois que benn mineur dafa trouver lu ñu woowee nonce ba pare valider block bi. dafay am instant bii nii six virgule vingt cinq bitcoin yoo xam ni day dem si moom si adresse am il aura le droit de les dépenser après plus de cent blocs donc euh, soo leen gisee ni instant bii nii ñu ngi si benn prix wu bitcoin aux environs de quarante mille entre quarante mille et cinquante mille dollars nga multiplier ko par six virgule vingt cinq bitcoin ça vous donne une idée de l'argent qui est léegi mineurs yi tamit da nga am ay mineurs institutionnels donc ay mineurs industriels laay wax mais aussi da nga am ay mineurs particulier ñoo xam ne ils ont peut-être benn wala deux ASIC seen biir kër wala seen biir garage di miner ñoo ñu utilisent ce qu'on appelle les poule de minage mais li lépp mën nañ si ñëwaat si benn vraiment podcast dédié au minage dans tous les cas mineurs yi leur rôle est important dañuy sécuriser système bi ba pare dañuy permettre transaction yi am et ils inspirent confiance à tout le monde après nag ils sont pas sans ce ne sont pas des acteurs totalement honnêtes, il faut tout le temps les surveiller. Mais dans tous les cas, ce sont des acteurs majeurs de l'écosystème Bitcoin. Enfin, quatrième group bi mooy développeurs yi Bitcoin aujourd'hui benn code open source la maanaam soo leen demee github point com slash bitcoin slash bitcoin gis lépp lu jëm autour de Bitcoin et depuis le début di ngeen am historique yi depuis le premier la première version qui a été publiée par Satoshi Nakamoto en 2009 Bitcoin depuis sa création donc depuis cette date la tu plus de 1600 développeurs éparpillés un peu partout dans le monde yoo xam ne na ñoo contribuer ci projet bi contribution yi nag c'est de plusieurs ordres am na ñoo xam ni ils vont proposer des modifications du consensus donc ay modification règles yi pour faciliter la vie de tout le monde am na ñeneen ñoo xam ni ils vont faire des propositions relatives à la sécurité am na ñeneen ñoo xam ni ils vont faire des propositions relatives à l'accessibilité et cetera et cetera étant donné que benn système bu bees la ku nekk da ngay ñëw apporter sa pierre à l'édifice pour améliorer ko la plupart du temps de façon volontaire am na aussi ñi nga xam dañuy ñëw pour bind ay test wala même pour dérouler tests yooyu noonu nekk ay testeurs am na ñenn ñoo xam ni seen contribution c'est relative à la documentation voilà donc euh, développeur ça veut pas seulement dire la partie technique c'est toutes les personnes yoo xam ni dañoo yeewu gis projet bi projet bi wax leen projet bi euh, raisonné si ñoom si seen vision du monde ñu ñëw apporter seen pierre à l'édifice discipline yi ñu fay fekk bëri na tu as des yoo xam ni ils sont spécialisés en cryptographie am na ñeneen ñoo xam ni il sont spécialisés en réseau am ñeneen ñoo xam ni ils sont spécialisés en protocole peer-to-peer euh, ak bëri na franchement am na ñeneen ñoo xam ni seen langage de prédilection bu ñu utiliser notamment pour test si c'est Python ah ak franchement domaines yi ak euh, waaye domaines yi nga xam ni Bitcoin daf ko ëmb dafa xaw a bëri trop donc lii c'était normal qu'il y ait de nit ñuy ñëw apporter seen pierre à l'édifice ba pare modifier développeurs yi donc ñoom ñooy garant wu sécurité wu protocole bi ñoom ñooy ñi koy modifier ñoom ñooy ñu koy valider su fekkee dafa am kenn ku proposer modification ñoom ñooy ki ñiy apporter mise à jour yi donc seen role dafa vraiment important et man dama leen wax en dernier parce que je considère que développeur bitcoin yi ñoom ñooy base fondement au bitcoin parce que benn système dafa soxla a chaque fois ñu koy si sinon dina nekk benn état statique acteur mauvais acteur yi dinañ trouver ay moyens contourner système bi wala boog violer système bi donc y a tout le temps besoin de sécuriser donc ñoom seen rôle dafa vraiment important te loolu luñ jar a wax la te man mii di wax ak yéen bokk naa ci contributeur projet Bitcoin yi. donc gis nañ ni bitcoin quatre acteurs principaux la dañoo am utilisateur finaux yi nga xam ne mën nañ nekk nit mais mën na nekk tamit entreprise au final mën na nekk tamit benn banque et après nga am commerçant yi ñi nga xam ni il acceptent de jaay benn affaire contre du après nga am mineurs yi nga xam ne ñoom ñooy sécuriser transaction yi ak blocs yi enfin nga am développeurs yi nga xam ne ñoom ñooy améliorer système bi donc relation bi nga xam ni ñeent acteurs yi am nañ ko entre ñoom c'est un relation bi nga xam ni c'est basé sur la théorie des jeux donc théorie des jeux c'est juste euh, comme son nom l'indique une théorie un peu et qui relation yi nga xam ni interaction yi am entre différents individus dans le cadre d'un pour aboutir à des résultats xam nañ ni ku nekk da ngay égoïste donc l'idée est de savoir est-ce que dina am ñoo xam ni ñoom ñooy mbooloo pour mën a daan ñeneen ñi wala ku nekk bopp sa bopp soo leen gisee acteur bitcoin yi ku nekk da ngay jéem a xool li la arrangé utilisateur final bi moom lu muy xalaat lu muy xaar en tout cas si système bi mooy que frais yi mu nar a fay bu mu bëri et que envoi yi gaaw nu mu gën a gaawee gën a yombee gën ko arrangé commerçant bi moom loolu tamit arrangé na ko mais aussi dafa soxla sécuriser ay bitcoin parce que ñoom d'habitude ils ont une grosse quantité de bitcoin disponible wala pour ñoom dans leur trésor et dinañ soxla ay solutions yoo xam ni ça leur permet de garantir la sécurité de ces bitcoins là ensuite nga am mineurs yi ñoom li leen di arrange mooy plutôt que frais yi yokk comme ça li ñuy gañe gën a yokk après développeurs yi ñoom li leen di gën a arranger mooy di faire passer des mises à jour et après différence bi mooy que doo xam finalement la mooy nekk seeni motivation d'habitude soit mineurs yi soit commerçants yi ñooy nekk ci gannaaw soit yenn utilisateurs finaux yi donc qu'est-ce qui va se passer dans de d'un désaccord entre différents acteurs yi daa ñoo xam ne dañuy mbooloo su ma bëree jël benn exemple bu simple mooy en 2016 2017 2018 dafa amoon benn missage à bu important waroon am ci bitcoin bi ñu woowee SegWit donc développeur yi. ñoom ñoo ko annoncé mineurs yi ils étaient contre commerçants yi ils étaient dans le flou utilisateurs yi ñoom is étaient un peu pour même su fekkee au final amuñu woon trop d'informations donc mineurs yi dañoo bañoon après utilisateurs finaux yi ak commerçants yi ñoo commencé di pousser pour que ñu mën a adopter que ñu mun a passer mise à jour boobu noonu et au final mineurs yi ils ont été obligés de nangu loolu parce que yenn mineurs particuliers yi nga xam ne dañoo bokkoon seeni pool yi dañoo dem di tànn ay pool de mineurs yoo xam ne il vont accepter cette mise à jour utilisateurs yi tamit commencé di déserter brokers yi mooy exchange yi nga xam ne ils ne voulaient pas passer ces mises à jour donc loolu mooy interaction yi am entre différents acteurs yi ku nekk da ngay surveiller sa morom mais au final kan moo gën a important bon man j'ai dit développeurs yi mais ñëpp important utilisateur bi dafa important parce que su amul valeur bitcoin c'est égal à zéro commerçant dafa important parce que soo yoree sa bitcoin te mënoo si jënd dara amul sens mineur yi dafa important parce que mineur soo amul le système n'est pas sécurisé et toutes les transactions ne sont pas validées développeurs yi tamit dañoo important parce que su développeur amul dangay am système bu faillible système bu faible donc ñëpp am solo donc ku si nekk na jouer rôle am rek et ñu avancer ndoo incha allah ensemble.